voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonneel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum adduna yëpp salaamaaleykum ñëpp maa ngi leen di nuyu seen doom seen xarit Soriba Kouyaté artiste chanteur auteur compositeur tey maa ngi wax ak yéen fii ci euh, fi nga xam ni mooy euh, Vibe Radio. waaw mais xam nga comme comme ni ñu wax rek euh, musique moom. métier la goo xam ni mbubb la bu ñu sol rek dem liggéey ñëwaat ñu nag doomu aadama yi ñooyam donc éducation bi de base bi mi ngi fi et puis li musique bi laaj suñu métier laaj def nañu ko waaye bu ñu retourné nag donc euh, dañu jël suñu habitude yi nga xam ni moom la yare yaree waaw Ba bi ngi ci musique bi donc euh, maa ngi ci album bi pare na daanaka yemu na euh, di waajal tournée nationale ak internationale ak sama sortie album c'est normal parce que la musique dañu une vision la si on vous dit ça dans les artères de l'industrie musicale il faut savoir innover innovation est un temps espace qui étaler sa vision et nous, avons am nañ place musique bi xam nañu xama et puis bëgg nañ dem fu sori il faut que jaay dara jëndee ko dara mooy mun a tout xaar muñ te liggéey liggéey loo xam ne comme bi ñuy ñëw ci musique on avait vingt deux ans vingt trois ans xam nga toog nañ trois ans quatre ans yoo xam ni am nga ci liggéey lañu nekk di jàngat musique bu baax a baax a baax pour mën a jëlaat beneen ascension te yaakaar naa ni bi ma ñëwaatee feeñ na ko am nga liggéey bi gën na feeñ te loolu la ñuy ñaan yàlla quoi. pourquoi Ndéla Ndéla dañ ko tànn tànn tur boobu ñu décider ko doo parce que tur la boo xam ne dafa am baatin et puis raar na ci ci jamono ji nga gis sax. ñu bëri xam nga tur nekk na bokk na ci tur yu raar yi donc ma jël bëggoon ci delloo njukkal suma soxna xam nga donc tuddul ndeela sax mais man maa ko tuddee ndeela et que ci morceau bi nga xam ni moom wax ci vidéo bi loolu lay def quoi bëri na mun nañu xaar euh, xeetu musique bu nekk donc ci diversité euh, ak couleur bu bëri loolu la ñuy wër donc loolu la liggéey te yaakaar naa ni amna naa bu baax ni euh, Afrique monde entier dinañ ko dinañ ko consommer bu baax dinañ dinañ apprécier suñu liggéey parce que Soriba mi ngi fi xale la et liggéey rek la xam. bon loolu nag mënuma ko xam parce que wax dëgg yàlla li ma sol sax damay yeewu ci nelaw rek tijji armoire mu war ma sol ko. waaw mun naa ne doole c'est dans le sang moo tax ma wax daf la ma way daf ma jalis <laughs> modd moom wax dëgg yàlla xam nga am naa ci esprit créatif bu baax bu baax baax baax damay créer bu baax baax baax suñu idée la ànd ceeg suñu tailleur bi nga xam ne mooy alu création comprendre nga tout le temps ba ci CLC bi xam nga galon yi nekk pinay seeg et tout xam nga yooyu yëpp esprit la créatif la woon xam nga te bëgg nañ comme li ñuy wax musique art la te ci art bi ñuy def dañ bëgg tout le temps lépp ba moyen de geste sax xam nga gis gaa gis ne lii am na ñu ci créer quoi loo xam ne c'est am na originalité xam nga loolu lañ bëgg te la ñuy wër waaw bien sûr ñu ngi xalaat def ay featuring def nañ ci benn ak jaamaan laxaat express mi ngi ci album bi ñu ngi xaaraat nag di xool ak style parce que am na xeetu musique yoo xam ni am na ci yoo xam ni donc mun nañ woyee ci technique boobu xam nga buñ ñëwee sax mun nañ am luñ leen doole mais am na ñoo xam ni loolu du seen style xam nga tamit mu ngi leen ci woo mun na woy mu nice mais liñ ciy bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg gu boobu noonu du ko am donc ci recherche boobu lañ nekk nii nii dernier mu suri ba muy kontaan rek di ñaan yàlla mu kontaan ci ñëpp di taalal ñëpp sumay loxo di sàkku ñaan bu baax parce que ñaan mu mu mu waral lépp xam nga surtout Vibe Radio tamit di leen taalal suma loxo parce que franchement ay nit yu yiw yu baax laa fekk ñoo xam ni tamit ñu ngi jox euh, liggéey bi akkam te ñaan yàlla lépp loo leen di def rek yàlla ci yàlla wis ndox bu sedd ci barki mohammed sallalahu alayhi wa sallam di ñaanal seeni wajur seeni njabot i diko ñaanal wa aduna bi yëpp diko ñaanal suma famille yëpp di ñaan sama yaay yalla na ko yàlla yërëm suma papa yalla bayiko ko fi ci kanam ñaanal suma staff ñëpp. Yo, c'est pas fini. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio Tu veux savoir plus sur tes stars préférées Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi.